asiru malabari nasiru wasanna dal leen ak jàmm seen entreprise troisième menuiserie métallique Mansour da ngeen a bëgg ay bunt waaw fer mu di métallique aluminium wala sax ay inox jege leen ni ñun waa menuiserie métallique Mansour ñu defalal leen ay design yu mucc ayib yaay tànn sa bu la neex waaw waaw si mu lay neex mën ngaa ñëwit def sab commande design ñu defaral la ko ca na mu gën a muccee ayib dégg leen ma rek seen nopp ma wax leen lu ci dàkkati bëgg ay literie rampante escalier ñu gën ko xam ci garde-fou chambre à coucher mini salon wala sax nag ay plateau télévision ñun waa entreprise troisième loolee lépp dañ koy defar ak defarina gu mucc ayib wax naa leen ko ca ba muy teel yéenay tànn seen bu leen neex menuiserie métallique Mansour benn la fi ña nga féete sa caaro yi tali jàllo si suufu pont bi janloog kër sër yi boo ñu bëggee jot wala nga bëgg am ay information sunu entreprise bi di menuiserie métallique Mansour mën nga ñoo jot ci 77 404 83 94 wala sax ci 77 975 75 95 menuiserie métallique Mansour la qualité notre force waykat bi dafa ni aduna day bëgg dof wala ma dof def lu ñaaw nekk di gën di law ay jëf yu tegginu yoo xamante ni ñu ngi koy nemmeeku fi ci duwaanu sénégal am xale boo xamante ni mi ngi toll ci juróom mbenn weer kepp ñu daat koy fekk te ci suba foofu ci diwaan bu pikin ñu def ko ci saaku sànni ko ci yooyu le mbalik Eh, ginnaaw ba ñu defee suñu ay investigation ba pare rek boobule xale sax ki nga xam ni moo di bàjjanam moo daal di joteeg rek ki nga xam ni moo di yaayam daat koy def sax eh, ci boobule saaku eh, sànni ko ci mbalit bi mu nekk loo xamante ni nag askan bi ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax a baax ndax xale muumin la xamul dara te bi mu jotee ak yaayam xale bi yoonam nekku si ba tax na rekk ñuy samp laaj euh, bëgg a xam ki def euh, bile mbir ana lan la yoon wara a daal teg ci kawam. ci oto bi lañ ko sànni ah du bébé bu ndaw. bébé bu ndaw. asiru maalabayi nasiru wasanna